Serigne Abdoulaye Diané Serigne Abdoulaye Diané mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1870 ci dëkk boobu nag di Ndiané nag gu mag dëkk boobu nag la feeñee jamono muy doomu Serigne Ndiané Sayer Diané ak soxna Mati Guèye moom Serigne Abdoulaye Diané nag bi mu feeñee jamono waajuram nag mi ngi ko tuddee Cheikh Abdou Khadir Jeylaani sëriñam boobu nag la ko duppee moom Serigne Abdoulaye Diané nag am na ñu bokkal Serigne Diané Sayer Diané mi ak soxna Mati Guèye ñu mën cee ràññee nag soxna Faa Xujja Diané bintu soxna Mati Guèye bintu Serigne Diané Sayer Diané jaane soxna roqayatu jaane bintu soxna mati géey bintu sëriñ jaane sayer jaane soxna penda buya jaane bintu soxna mati géey bintu sëriñ jaane sayer jaane soxna assu balla jaane bintu soxna mati géey bintu sëriñ jaane sayer jaane soxna jobbe jaane bintu soxna mati géey bintu sëriñ jaane sayer jaane juróom nag la bokkal waajur wu góor nag ak waajur wu jigéen ak moom nag muy juróom benn ngir xamale leen nag njaboot gii mu bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen nag ñoom ñooy ñan doomu ndayam ji di soxna jobbe jaane bi mu matee kër ci la dara maan nag lañ ko yóbbu woon jox fa nag ku ñuy wax sëriñ Ibra Binta Silla mook sëriñ Ibra Binta Silla nag benn bant nag lañ am mu soxna xujja ndaama Silla soxna assu ci dëkk bii nag di siin laykat nag lañ ko yóbbu woon ko fa nag ku ñuy wax sëriñ Asan Kan soxna assu balla nag mook sëriñ Asan Kan nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna màggat kan ak soxna mati kan doomu ndayam ji nag di soxna roqaya jaane bi mu matee dem kër kokki nag lañ ko yóbbu woon jox fa nag ku ñuy wax sëriñ maxtaar anta gay jóopa mook sëriñ maxtaar anta Anta Gaye benn bant itim nag lañ am muy soxna bint Diop doomu ndayam ji nag di soxna Faa Xuja Jaane bi mu matee dem kër dëkk bii di lappe nag lañ ko yóbbu woon jox fa nag ku ñuy wax sëriñ Modou Kaba Touré mook sëriñ Modou Kaba Touré nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Jama Touré sëriñ ma Demba Touré soxna Njaxa Touré ak sëriñ ma Xuja Touré doomu ndayam ji di soxna Penda Buya Jaane bi mu matee dem kër njaane gu mag nag lañ ko yóbbu woon njaboot gii ñu leen tuddal nag ñoo bokk ak sëriñ Abdoulaye Jaane nag waajuru góor nag ak waajuru jigéen kër yiñ dem nag njaboot yañ fa am ñooy jarbaate sëriñ Abdoulaye Diané yi bala ñoo xuus nag ci sëriñ Abdoulaye Diané mii ñu taxaw tuuti nag ci waajuram wu jigéen wi nag di soxna Mati Guèye doomu sëriñ Mayib Guèye la sëriñ Mayib Guèye mii itam yi nag la bokkoon daa am bis nag muy waxtaan ak doom ji nag di soxna Mati Guèye di ko xamal ne gis naa àkk boo xam ne nii saa boo ko àkkartee nag mën naa am nag lem nag génn ca ci misaal daal lim ko bëggoon a wax mooy gis naa mag moo xam ne nii su ma la fa yabalee nag nga dem fa nag sëy ak moom soo ci amee nag ak njaboota mën naa nekk nag wàlliwu wala koo xam ne nii daal danañ ko ràññee doom ji nag di soxna Mati Gueye kàddug waajuram googu itam déggiwu ko nag ak nopp yu tëx mu wéy nag dégg nag ndigalul waajuram ñu boole ko waajuru sëriñ Abdoulaye Diané mii di sëriñ Diané Sayer Diané booba itam nag sëriñ Diané Sayer Diané mii ci dëkk boobu mu nekkoon nag di Ndiané nag gu mag nekkoon na fa nag imaam nekkoon na fa koo xam ne nii nag ku waa dëkk ba nag nawoon la demoon na daal sonn nag ci ay at na daal ba feebar na koo gañe aatan ba jàkk jooju mu daa nodd itam nag gëj na fa ay ati ati at bi soxna Mati Gueye ñëwee nag wéyal nag ndigalul waajuram woowu nag di sëriñ Mayib Gueye mu ñëw nekk nag soxna sëriñ Diané Sayer Diané mii ci taxawaay boobu mu amoon nag ci sëriñ bi demoon na itam nag ba sëriñ bi jafe-jafe yooyu mu amoon nag daa di deñ ba am bis nag mu delluwaat nag ca jàkka ja nag noddu mag ñu bari nag doon wax ne bu fekkoon ne daal ba sëriñ Diané Sayer mii nag di man ne daal noddu gii ñu dégg nag moom la bi mu amee nag mag nag ñu ciy jiixi jaaxa la ñenn ñu nag nag ca jàkka ja fekk nag sëriñ jaane sayar jaane mii nag noddu soxna mati géey nag def nag la ko waajuram wa nag waxoon di sëriñ mayib géey doon ko xamal ne daal gis naa ak boo xam ne ni soo ko akkartee mën naa am nag lem na génn ca mooy gis naa mag moo xam ne nii nag soo fa demee liggéeyal ko nag ngir suñu boroom mën naa am nag nga jur fa nag wàlliwu loolee ko waajuram waxoon moom soxna mati géey di sëriñ mayib géey mii gis na ko ndax am na jant nag muy sëriñ abdoulaye jaane waajuram wu góor wi nag di sëriñ jaane sayar jaane sëtub kokki la moom sëriñ jaane sayer jaane mii doomu soxna ndaak jóob la soxna ndaak jóob doomu soxna faa xujja jóob la soxna faa xujja jóob doomu sëriñ madun faa xujja jóob la sëriñ madun faa xujja jóob mii doomu sëriñ maxtaar ndumbe jóob la bu kokki sëriñ abdoulaye jaane nag bi matee dal alxuraanul karim waajuram nag di sëriñ jaane sayer jaane mii moo jël nag ab taawam di sëriñ moor ahmadu jaane mii nag jébbal ko ko ngir mu jàngal ko alxuraanul karim sëriñ abdoulaye jaane nag ci loxoy magam di daaray waajuram nag fa la jànge alxuraanul baaxoo ba tàmbalee jàngale sax nag ca daara ja magam jii ko jàngal nag di sëriñ moor du jaane mii waa njàmbur nag ñu ngi ko gën a xam ci sëriñ moor axmadu tafsir moodu jaane ginnaaw bi itam nag jóge na nag ci loxoy magam di daaray waajuram dem nag ci dëkk bu ñuy wax ci la ci sëriñ moor yaasin silla ngir wéelu fa nag am njàngam sëriñ moor yaasin silla mii nag ñu baree bari sëriñ cumbuleen nag lañ ko gën a xamee ginnaaw ci la googu nag moom sëriñ abdoulaye jaane dem na nag dëkk bu ñuy wax nag ngaa ñaax jeng ngaa nag ba mu fay dem na la sëriñ moor xujja biram la fa fekki woon ci loxoy sëriñ moor xujja biram mii nag la nekk nag di jàng xam-xam ci gaañax jeng googu itam nag la ko seexul xaddim feeñoo mu am bis nag mu tëdd nag ci daara ji ba guddi lool nag am nag lu ko wax ne sëriñ boobu daal nekk ci géej gi saa boo ko jébbalee sa bopp sa àdduna dana jag sa àllaaxira itam nag dana jag kàddu googu itam nag dégg na ko ñetti yoon ci ñetti bis bis bu ne itam nag ñetti yoon ci ñetteelu bis ba nag ca ñetteelu yoon ba mu ko dégg nag ci nag ci guddi gi lislaam andu itam nag ba génn dëkk bi julli ñaari ràkka ñaantim nag ci suñu boroom kii nga xam ne nii daal moom lañ koy wax su ko giseeg su ko gisul jébbal na ko nag boppam mu wéy des nag ci dëkk boobu nag di gaañax jeng ba ni seexul xaddiim nag jógee ci géej gi nag ci atum 1902 seexul xaddiim jaar fi ndakaaru ndar luga bari jàmm siisee sànnoo si ba ci dëkk bii nag di ñaxal sëriñ Abdoulaye Diané itam nag ñaxal googu nag la ko fekk jaayanteeg moom sëriñ Abdoulaye Diané nag bari na nag ñu mu Issa Ñax Jeng ba ni mu demee nag julli ñaari raaka nag ñaan nag ci suñ borom jébbal boppam nag kooku muy dégg nag te gisagu ko bi mu ñëwee nag ci dëkk boobu nag di ñaxal ba gisanteeg sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim wax na ne bi mu raamee nag ba egsi nag ci sëriñ bi la ko sëriñ bi doon wax ne daal sa yóbbante nag jot nañ ci te booba itam nag lañ la ko nangul lii moom sëñ Abdoulaye Diané bari na nag ñu ko nettali nag ci ak dundam ne nii nag la xamee nag sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim keroog bi mu njëkkee gis Seexul Xadiim itam li ko Seexul Xadiim wax itam sa yóbbante jot nañ ci te nangul fi daaru marnaan am fi takk-takk nag ak lenn nag ci tubaab bi ñu jëlewaat ko fi nag yóbbu ko gànnaar gànnaar googu nag la sëriñ Abdoulaye Diané nag muritoo gànnaar googu itam nag la jote ngërëm bisub kero nag bi ko seexul xadim nag di gërëm mook sëriñ Moodu Xari Mbàkke nag bu pëf di la gërëmandoo mook sëriñ Moodu Xari Mbàkke nag bu pëf di ñoo ndoo gànnaar nag delsiwaat nag ci biir réew mi moom nag bi muy muritu nag li ëppoon nag ci ab liggéeyam mi ngi woon nag seexul xadim nag ci njàngum alxuraan mi ak itim nag di ci biir réew mi seexul xaddim nag wéy nekk gànnaar bi seexul xaddim jógee gànnaar ñëw ca yéen jolafitim sëriñ Abdoulaye Diané itam nag daana dem ca yéen jolafitim nag di ko ziyaare ginnaaw ca yéen jolafitim nag njaareem njaareem googu itam nag daana fa dem itam nag daa fa fekki nag ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddim ba njaareem googu itam nag amoon na fa kër room ji nag di soxna ummi Diané sax nag fa la feeñe jamono yoroon na nag ay soxna biir soxna yim yaroon nag ñu mën cee ràññee soxna mati sil mook soxna mati sil nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee sëriñ Moodu Diané sëriñ Sayer Ndaak Diané sëriñ daam jaane ak soxna jaane na soxna suñu wax soxna binta jabeel mook soxna binta jabeel itam nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee sëriñ basiiru jaane sëriñ abdul mujib jaane soxna assu jaane ak nag ñiñ bokkal moom sëriñ abdoulahi jaane itam yoraatoon na nag soxna suñuy wax soxna anta géy silla mook soxna anta géy silla nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëriñ fàllu jaane sëriñ mbàkke jaane cheikh ibrahima fall jaane sëriñ abdul fata jaane soxna maymunatu kabir jaane ak nag ñiñ bokkal yoraatoon na soxna suñuy wax soxna jeng mook soxna jeng itam nag am na nañ ak njaboot ñu mën caa ràññee nag soxna Nogay Diané soxna Mati Guèye Diané sëriñ Maam Thierno Diané soxna Aminta Lo Diané sëriñ Mouhamed Nasir Diané ak nag ñiñ bokkal yoraatoon na nag soxna suñuy wax soxna Alimatu Silla moom sëriñ Abdoulahi Diané mook soxna Alimatu Silla nag am nañ ak njaboot ñu man caa ràññee nag sëriñ Badar Diané sëriñ Cheikh Diané soxna Roqayatu Diané ñu gën koo xam nag ci soxna Naar yoraatoon na soxna suñuy wax soxna Aminata Nger mook soxna Aminata Nger itam nag am nañ ak njaboot ñu mën caa sëriñ Abdul jaane ak soxna anta jaane yoraatoon na soxna suñu wax soxna xadijatu silla mook soxna xadijatu silla itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ baara jaane soxna binta jaane sëriñ hamdi jaane soxna cubba jaane sëriñ mustapha jaane ak nag ñiñ bokkal moom sëriñ abdoulaye jaane nag soxna yooyu nag la dëkkoo woon njaboot yooyu nag la ci am ngir xamale leen nag njaboot gii mu am nag ñoom ñooy ñan doom ji nag di soxna ummi jaane bi mu matee dem kër sëriñ moodu fàllu sill nag ci dëkk bii di koso nag lañ ko jébbaloon mook sant lañ am muy soxna mati móori sill ginnaaw bu soxna ummi nag jógee ci sëriñ du fàllu sill mi ci koso lañ ko jébbal nag sëriñ yéeri jaxate ci dëkk bu ñuy wax na kër ma sàmba soxna ummi nag mook sëriñ yéeri jaxate nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññe nag sëriñ ceerno jaxate sëriñ mbay jaxate soxna faati jaxate soxna xadi jaxate ak soxna ngaan jaxate doom ji nag di soxna jaane bi mu matee dem kër sëriñ jëmm faati siise nag lañ ko jébbaloon ci dëkk bu ñuy wax nag ciise mook sëriñ jëmmu faati siise nag am nañ ak njaboota Bousso Cissé Serigne Cheikh Soxna Cissé Soxna Ndiaye Cissé ak Soxna Khady Cissé doom ji nag di Soxna Assu Diané bi mu matee dem kër Serigne Cheikh Touré nag ci dëkk bu ñuy wax càq mi nag lañ ko jébbaloon Soxna Assu Diané nag mook Serigne Cheikh Touré nag amuñu nag ak njaboota doom ji nag Soxna Anta Diané bi dem kër Serigne Modou Sylla ci dëkk bu ñuy wax Bopp Sylla nag lañ ko jébbaloon Soxna Anta nag mook Serigne Modou nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag Soxna Ndey Sylla Serigne daam Sylla Serigne Cheikh silla ak Soxna Mariama silla doom ji nag di Soxna Nogay jaane bi mu matee dem kër sëriñ Thierno Diané ci dëkk bu ñuy wax nag Ndiané gu mag nag lañ ko jébbaloon soxna Nogay nag mook sëriñ Thierno Diané nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Mouhamadan Diané sëriñ Daam Diané soxna Faati Bisi Diané soxna Ami Kolle Diané ak soxna Sooda Diané doom ji soxna Naar Diané nag bi matee dem kër sëriñ Moodu Faa Kumba Sill nag lañ ko jébbaloon ci dëkk bii nag di Cilla Daramaan soxna Naar nag mook sëriñ Moodu Faa Kumba Silla nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abdou Silla ak sëriñ Omar Silla ginnaaw bu soxna Naar nag jógee nag Cilla Daramaan lañ ko jébbal na sëriñ Moustapha Ramata Silla mook sëriñ Moustapha Ramata Silla itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññe nag soxna Aram Silla sëriñ Touba Silla sëriñ Alioune Silla ak sëriñ Silla doom ji nag di soxna Binta Jaane bi mu matee dem kër sëriñ Dàgga Mbeng nag lañ ko jébbaloon sëriñ Dàgga Mbeng nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññe sëriñ Mbàkke Mbeng ak sëriñ Daa Mbeng doom ji di soxna Cubba Jaane nag bi mu matee dem kër sëriñ Taala Mbay nag bu longoor nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Taala Mbay nag am nañ ak njaboota mën cee ràññe nag soxna Ndaag Mbay soxna Maam Faati Mbay soxna Maam Mariam Mbay sëriñ Abo Mbay soxna Muumi Mbay sëriñ Jili Mbay soxna Maam Jaara Mbay sëriñ Abdoulahat Mbay sëriñ Saaliwu Mbay soxna Nday Mbay ak ku ñuy wax nag Maam Jaara Mbay di ñaareelu soxna Jaara Mbayam doom ji nag di soxna May Jaane bu matee dem kër sëriñ Roqee Jaane nag lañ ko jébbaloon mu sëriñ Roqee Jaane nag benn bant lañ am muy soxna Busa Jaane njaboot googu nag ñu leen tuddal ñooy lenn nag ci sëti sëriñ Abdoulaye Jaane yi moom sëriñ Abdoulaye Jaane nag bi mu jaayante ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul wéel aw yoonam nag ñëw nag ci dëkk bii nag di daaru salaam ginnaaw daaru salaam nag la dem daaru marnaan daaru marnaan googu nag la amaate woon nag ay jafe-jafe nag moom seexul xaddiim ñu yóbbu ko nag ci réew mii nag di gànnaar gànnaar googu nag sëriñ Abdoulaye Diané nag dem na fa seeti nag ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddiima doomu ndeyam nag juñ doon wooye nag sëriñ Noor Jaxate nag la àndaloon nag dem gànnaar bi mu eggee gànnaar itim seexul xaddiim nag téye na ko fa nag dog koo ñaanalaat nag mu delsiwaat nag ci biir réew mi nag ak nekkinam nag ci réew mi nag wéy des gànnaar nag ba ni mu jógee gànnaar ñëw nag ci dëkk bii nag di Ceyeen Jolofa Ceyeen Jolof googu itam nag sëriñ Abdoulaye Diané itam nag daana fa dem daa ziyaara ji itam nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiima ginnaaw Ceyeen Jolof itam nag njaareem njaareem googu itam nag daana fa dem itam nag di seeti sëriñ Tuubaa Seexul Xadiima moom sëriñ Abdoulaye Diané nag mu ànd ak nag ay góor yàlla nag yu takkoo takkoo takku di liggéey ngir jëmmi ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiima moom sëriñ Abdoulaye Diané nag ci góor yàlla yooyu mu àndaloon ñu mën caa ràññee nag sëriñ Madiagne Dieng ñu mën caa ràññee Dieng sëriñ Mor Soxna Dieng sëriñ Mandiaye ci dëkk bu ñuy wax Mbassine sëriñ Ma Soxna Dieng sëriñ Ibrahima Gassama sëriñ Makhtar Jobbe Sill ci dëkk bu ñuy wax Mbooba sëriñ Makhtar Mbay sëriñ Malick Diagne ci dëkk bu ñuy wax nag Kantar sëriñ Aline Ndoye ci dëkk bu ñuy wax Jolof sëriñ Bakar Jaxate sëriñ Mor Kumba Sall ci dëkk bu ñuy wax Mbassine sëriñ Ma Fari Ndiaye sëriñ Ma Dieng Faati sëriñ Mbay sàmbu ci dëkk bu ñuy wax Kiir sëriñ Moodu Dieng sëriñ Demba Diop Thiam sëriñ Ale Fall dëkk bu ñuy wax Kër Yamar sëriñ Ibrahima Fall ci dëkk bu Joor Bey ci dëkk bu ñuy wax Kër Yamar sëriñ Yuga Bey sëriñ Moussa Mbay ci dëkk bu ñuy wax Mbasin sëriñ Masamba Booy ci dëkk bu ñuy wax Tawa sëriñ Saaliwu Ndaw ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ci ay góor yàlla yu sëriñ Ablaay Jaane nag daa àndal ci dëkk yu wuute nag yu mu gor wala nag ci daara yu wuute wuute nag yu mu nekkoon moom sëriñ Abdoulaye Jaane nag mu nekkoon nag ku bari woon nag ay ikam nag yu mu daa wax ngir nag mu nekk nag lu jariñ nag taalibe yi ko suñ boroom nag booleel ngir jëmmi nag sëriñ Tuubaa Seexul Xadiima jëf yi mu ne jëf ju ne nag day jëf yi nag ca boroom lu mbooloo mi bari bari nag du ma jaawale te bukki nag du ma këf gaynde nag du ma fàdd ab rëbb nag du ko fetal saa bu jëf nag eggee nag ci boroom jëf ji benn nag mu yuuxu wala nag mu xuuyu daana wax na itam nag sëriñ tubaa nee na ku bëggul nag lu dul lenn suñ boroom nag man ko koo defal te nag loolu nag du ko tee nag nekk buur daana wax na nag def nag te yàlla tax ak jëf joo xam ne ni nag yàlla taxul li leen wuute la nag lii la def nag te yàlla tax nag lu mu bari bari bari nag da nga koy sant ndax jëf jë moom sëriñ Abdoulaye Diané itam nag daana wax ne ku la wax ne maa la man nee ko nag ci jan wet nag nga ma man daana wax itam nag képp nag ku nekk nag ci lu baax seytaane nag jub si la daf lay xëbal dong nag waaye du la mënal dara waaye itam nag ku nekk nag ci ab safaan lu baax nag daw nag wut si la daf lay jey rek nag waaye nag du la jege daana wax itam nag kuy baax di baax nag ba dajeeg suñu boroom da nga xam ne nag suñu borom nag moo gën ku ne mu ne nag kuy bon di bon nag ba dajeeg suñu borom da nga xam ne itam nag yow nag yaa bon a bon wax ne itam nag balaa nit a yàlla nag boo jegee nit ñi danañ nag ba soppi la wala ñu wax a wax nag ba soppi la daana wax nag masala nag ak masalaaj nag bokkuñu mu ne lii ñuy jàng nag du masala masalaaj la nag lu tudd nee na da nga koy jàng nag xam ko bis ñëw nag nit laaj la ci nag nga tontu mu ne masala nag ci suñ boroom nag lay bàyyi ko wàcc nag ci ab xolub jaamam te jaam bi nag saa bu ciy tontu nag du juum daana wax itam nag buñ naan moytu leen taal bi nit a tax waaye ab dof nag dangay dox nag digganteem ak taal ba lu ko mooy nag mu tàbbi ca daana wax itam nag wax nag day am maanaa amuk kenn amuk dayoo amit nag waxtu daana wax na itam nag àjjana tuddut àjjana ay jeex na nag la tudd daana wax na itam xam-xam bu àndul nag akuk njébbal xum-xum la daana wax itam nag maa la man nag juy dëgg nekkul nag ci kaw suufa ci biir suuf nag la nekk mas naa am itam nag ku ñëw di ko laaj nag am dénkaane mu di ko wax nag àdduna nag na nga ko ginnaawal nag ci loo man ndax àdduna nag jikkoy takk ndeer nag la yore soo dee dox nag mu ànd ak yow nag di dox soo taxawee nag mu taxaw te soo sëggee nag bëgg Abdoulaye Diané ndénkaan loolu nga xam ni nag daana ko def nag jëmale ko nag ci ñi ko yaakaar mu ne am na sikk xol yi nga xam ne nii nag day gàllankoor doomu aadama bi ba may yi ko yàlla may nag du ci mën a jot ak may yi nga xam ne nii nag suñu borom may na ko ab jaamam bu xolam setee nag ba mu dem nag ba di ko won nag ay mbir mu misaale ko nag ci bukki nag ak bëy mu ne nag mi ngi meloon ne nag nga am nag géttu bëy xëy leen yeewi ñu dem nag wëtti gétti bu bëy yeewe woon nag nga dem nag yeew fa bukki ngoon jot nag bëy yee ñibbisi nga bëggoon leen a dugalaat nag ci biir gétt fexeel nag ba sonn waaye benn bëy nag du fa dugg wax ji nag di tekki ne ay ñaaw téef nag fu mu bari yiw nag du fa gaaw a am daana wax itim nag nit nag ñett la ku nite nag ca nit ña di nit itim nag ci suñu borooma ñaareel bi nag mooy koo xam ne nii nag nit la nag ci nit ñi di dof nag ca yàlla ñetteel bi nag mooy koo xam ne nii nag dof la nag ci nit ñi waaye di nit nag ca yàlla mu ne nag ku njëkk ki di nag nite nag nit ñi nag di nit nag ci yàlla mooy ki farlu nag ci mbirum doomu aadama yi waaye farlu itim nag ci mbirum suñ boroom ji xam ne nii dana déggoo nit ñi waaye mbirum suñ boroom nag du ca def dara mooy nag ki nite nag ci nit ñi nag te dof nag ci yàlla ki nag mooy ki nga xam ne nii doomu aadama yi nag mënuñoo def ak moom ndax xeeb ko lu mu jëf nag suñ boroom nag ànd ca mooy nag ki dof ci nit ñi te wér nag ci suñu borooma daana wax ne itam nag ku egg nag te eggoo àjjana da nga yéegaat nag àdduna nag soppi liggéey nag am na fi waaye wàcc nag amu fi daana wax na nag xam-xam nag li ko tax a baax ndax xam nag mooy tax a bëgg mu ne néew na lool nag nit nag di bëgg nag lu mu xamul daana wax na itam nag bari na ku ñuy yee nag mu tëye yeew waaye nag ajuwul nag ca kañuy yee ca kay yeetee la ku bari woon nag ay kàll la nag yum daa kàll nag ñum daa àndal ngir bëgg itam nag bu ëllëgee nag buñ ci saxee benn ñaaw téef nag bañ leen a mën a fëkk dëkk bi mu njëkk a nag ñu koy wax nag Touré alpaate ci atum 1904 nag la ko sanc ñaari doomam yi itam nag foofu nag lañ feeña jamono muy sëriñ Moodu Jaane ak doomam ji nag ñuy wax sëriñ Daam Jaane nekkoon nag ñetteelu xalifaam foofu itam nag la feeña jamono nag fu ñuy wax kokki mbaakol foofu itim nag am na lenn itim nag ci njabootam nag gu fa feeña jamono ñu mën caa ràññee nag sëriñ jaane sëriñ sayer jaane soxna asu jaane ak sëriñ basiiru jaane sañcaan na dëkk bu ñuy wax nag njaane nag kër sàngoone amoon na suuf itim nag ci wetu diiwaan silla nekkoon fa doom jii nag di cheikh mohamadul faadal jaane foofu nag la feeñee jamono bi mu nekkee njaareem itim nag ci ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim soxna ummi jaane nag moom foofu itim nag la feeñee jamono waaye njaareem googu nag sëriñ abdoulaye jaane nag yàggu fa njaareem googu nag ba mu fa nekkee ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim dafa gisoon ne daal suuf sum bàyyee nag amu ko fa taxoon nag mu sàkk woon nag ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim mu ñaanal ko nag mu mën a dem nag faneen nag fu mu liggéeyale nag suñu boroom seexul xaddiim nag di ko wax ne nag na dem ci maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina ngir nag mu wutal ko suufa bi sëriñ Abdoulaye Diané nag demee nag ci Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina la ko wutal suuf nag ci wetu gébbu Fall moo am fa suuf nag tudde ko njaane gébbu dëkk boobu nag di njaane gébbu lu ëpp nag ci ak njabootam ci dëkk boobu nag la ñu feeñee jamono dëkk boobu itam nag fa la wéy nekk nag ba ni sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim génnee àdduna dëkk boobu itam nag fa la nekk nag ba ci atum 1942 Cheikh Mamadul Moustapha nag jox mu dem nag ci suuf si di jaxaaw sanc fa nag fu ñuy wax nag gàllooli foofu itam nag fa la nekk nag ba ni Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke nag génnee àdduna ci 1946 nag la fa bàyyi ko ñëw nag sanc nag dëkk nag bi mu mujjee sanc dëkk boobu sax nag fa la génnee àdduna ñu koy wax nag njaane bël bël sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma nag moo ko waxoon nag mu sanc ko njaane bël googu itam nag lu tax nag mu sanc ko cheikh mamadul moustapha mbàkke nag moo ko doon xamal ne war ngaa jóge nag saalum laataa nag mu fay jóge cheikh mamadul moustapha mbàkke nag génn na àdduna sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma nag jox ko ndigal nag mu jóge fa ci dëkk boobu sax mu goroon nag di njaane bël foofu sax nag la génnee àdduna dëkk boobu nag doomu cheikh mamadou moustapha mbàkke ba di sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma nag moo ko nag ngir mu gor ko atum 1946 ci dëkk boobu wéy nekk di yar di jàng nag ak di jàngale ba ni mu génnee àdduna ci dëkk boobu sax nag di njaanee bël fa la ko feebar nag tërale mu yónni woon nag taalibeem bu ñuy wax nag sëriñ Ousmane Dieng ci sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma booba kan moom lay xoole nag Cheikhul Xadima moom sëriñ Ousmane Dieng moom nag li ko sëriñ Abdoulaye Diané nag yónni woon sëriñ Abdoulaye Diané nag ci dëkk boobu nag di njaane bël la ko soj nag daanelee mu tëdd ko ci la yónnee nag sëriñ Ousmane Dieng moom di ko xamal ne daal na dem na amul jotug nag di tëdd nag feebar feebar bu fekkee ne nag feebar bi da cee war a génn àdduna na xam bu fekkee ne itam nag da cee war a wéré itam nag na xam jotug nag nekk fii nag di tëdd feebar te liggéeyul sëriñ Touba lool moom du lu muy man ginnaaw bu ndaw li ñëwee nag Touba lañ koy xamal ne daal sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi ngi Louga nag ci ak ngan ndaw li nag jóge Touba nag dem luga xamal lii ko sëriñ Abdoulaye Diané waxoon muy daal amul jotug nag di tëdd feebar bu fekkee ne feebar bi nag da cee war a na jóg nag liggéeyal sëriñ Touba fekkee ne itam nag feebar bi nag wuru cee wéré na dem nag nag suñu borooma li waxee loolu Gaynde Fatma ba noppi sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag da doon xamal sëriñ Ousmane Dieng di ko wax ne bu subaa ci altine ji neel sëriñ Abdoulaye Diané nag nañu dajee daaru mar naanuk sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke ndaw lu jógee Louga nag laataa muy ñëwaat nag njaane bël la fekk nag sëriñ Abdoulaye Diané nag génn àdduna mu yëgal ko nag njabootu sëriñ Abdoulaye Diané nag gi fi nekkoon ñu jële sëriñ Abdoulaye jaane nag ci dëkk boobu nag di njaane bël fas seene ko it sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag ci dëkk bii nag di daaru mar naanuk sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke jële sëriñ Abdoulaye Diané ci dëkk boobu nag di Ndiané Bel ba ci dëkk bii nag di Cilmaxa dañ ko faa nag yanoo ci Cilmaxa googu nag fi ñu tegoon sëriñ Abdoulaye Diané nag di xaar oto mi ngi jàkkaarloog foraasu Cilmaxa gi kër ga ku ñuy wax sëriñ Moodu Njéeme Jeng nag moo ko moomoon taalibeeb sëriñ Abdoulaye Diané la chauffeur bu ñuy wax seex Jeng otoom nag lañ teg sëriñ Abdoulaye Diané fa séene koo indi Touba seex Ndiaye moomu nag njaareem nag la dëkkoon foofu ñu tegoon sëriñ Abdoulaye Diané nag ca Cilmaxa moom mooy nag léegi jumaay Cilmaxa ji ñu jëlee ko foofu ñëwee nag ba tolloog daaru marnaanu sëriñ cheikh awa balla mbàkke bi ñuy tourné la ñu dajeeg sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma ñu wàcc ziyaare sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma wan ko néewub sëriñ abdoulaye diaane sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma wax mbooloo mi ne nañ ko wéy yóbbu tuuba suñ eggee nag ñu jébbal ko cheikh mouhamadul faadal mbàkke moom sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma nag mu wéyal nag ab tournéem ci Louga googu mi ngi génn àdduna nag moom sëriñ abdoulaye diaane bisub altene ñetti fan ci rakkaat ji gàmm ci atum gàddaay gi altene ñetti fan nag ci rakkaat ji gàmmu ci atum 1372 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy lundi 19 janvier 1953 lundi 19 janvier 1953 ci dëkk boobu mu goroon ci ndigalul sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma di Ndiané Bel ñu indi ko Touba nag jébbal ko Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke itam nag moo sàkku nag ci rakkam sëriñ Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacke mu jullee nag taalibe sëriñ Touba Cheikhul Khadim bi moom sëriñ Abdoulaye Diané nag ay ay xalifaam nag nii la tëddee xalifaam bu njëkk nag mooy sëriñ Modou Diané moo ko wuutu nag ci atum 1953 ba ci atum 1974 ñaareelu xalifa sëriñ Abdoulaye Diané mooy sëriñ Sayer Diané moo fi toog nag ci atum 1974 ba ci atum 1986 ñetteelu xalifa sëriñ Abdoulaye Diané mooy sëriñ Dame Diané moo fi toog nag ci atum 1986 ba ci atum 2017 ñeenteelu xalifa sëriñ Abdoulaye Diané mooy sëriñ Badara Diané moo fi toog nag ci atum atum 2017 nag ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñu borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu waajuróom boobu ak mboolem nag ñu mu am na bés nag buñ koy fàttaliku ci liñ tudde ak màggal bis bii mu génnoon àdduna nag muy ñetti fan nag ci rakkaat ji gàmmu bis boobu nag lañ koy fàttaliku ci 1954 nag ba nëgëni ci nag la génn àdduna ca déwén sa nag di 1954 nag lañ tàmbali màggal gi màggal gi nag bari na nag ay bërëb nag yu mu jaar dëkk bii di Njaane Bel dañ ko daa màggale nag ci atum 1954 ba ci atum 1987 ci dëkk boobu nag di njaane bél nag lañ daa màggale nag ñetti fan nag ci rakkaat ji gàmmu ci atum 1987 nag lañ ko indi nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ci xilaaf ak nag ñetteelu doomu sëriñ Abdoulaye Diané bii nag di sëriñ Daam Diané ci suuf soo xam ne ni nag sëriñ Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke nag moo ko joxoon njabootu sëriñ Abdoulaye Diané gi ci diggante HLM bu Soxna May ak Aliya nag bu Alaaji Baara mu tegoon ko mooy sëriñ Abdoulaye Diané sëriñ Daam Diané itam nag jël suuf soosu mbooleem njabootu sëriñ Abdoulaye Diané gi nag mu wutal la fi kër nga dëkk fa ñu fay màggale na nag seen waajur wii nag di sëriñ Abdoulaye Diané ci atum 1987 nag ba nëga ni ci ñetti fan ci rakkaat ji gàmm di bés bi mu génnoon nag àdduna ñuy ñaan ci jàmbaari sëriñ Touba Seexul Xadim ja sëriñ Abdoulaye Diané yàlla ñu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram taas ñu itam nag ci barkeem li